ay aéroport bi woon Léopold Sédar Senghor fii ci ndakaaru ca yoof ñu bari umpale mujjanteelam waaye itam ndax lu ñu fa waxoon ba tey def nañ ko ay logement yu état bi waxoon dana ko jox askan wi waaye itam espace vert bi nga xamante ne daanaka dañ ko jagleeloon capitalu ndakaaru ba ñu bari di naan ndax nguur gi nekkul di jaay lii di terrain yi ndax yaatu na te itam gis nañ fa ñi nga xamante ne daanaka dañ fa commencé ay tabax ana li mu doon ñu génnoon jàkkaarloog askan wi xool ndax am na liñ ci xam ñu taataarlu seen i kàddu ci micro Leral TV. lépp lépp loo xam ne war nañ ko def rek war nañ ko mën a euh, yëgoo waaw nguur gi aussi lépp lu mu war a def aussi war na xool population bi toog ak ñoom laaj leen seen xalaat ñu toog waxtaanee ko waaw ñu ko waxtaanee ñu xool lan la mën a yokk ci askan bi ak lan la war a mën a wàññi ci askan bi. am na ci ay décisions yu bëri yoo xam ne aussi euh, askan bi da koy soxla souvent parce que am na euh, euh, souvent ay mbir yoo xam ni dinañ ko jaay ba pare te askan bi duñ duñ duñ ci bàyyi xel yu demee ba mu yàgg ñu gis jékki-jékki rek gis ñu tabax di def ay yeneen yoo xam ni ñoom yëguñu su ko defee loolu ñaare day andi ay ay ay coow. waaw day andi ay coow te li ëpp ci doomu aadama yi loolu la ñuy def te boo xoolee ba ci biir loolu tegul ci yoon daal man daal maa ngi ñaan lépp loo xam ni nguur mu ngi koy décider na woo euh, population bi woo euh, euh, chef de quartier bi woo jeune jeunesse bi ñu toog waxtaane ko ñu xool lan lañ ci mën a jël ak lan la ci population bi wara mën a jël. ci nguuru Sénégal moi je me dis que il respecte pas la population sénégalaise benn. amuñu yërmande ci population sénégalaise ci li ñuy dund euh, li ñuy def bon euh, man dama ni sénégalais la rek ci sénégalais la parce que ñoom ñoo respecté wul seen bopp parce que nguur bu fi nekkee tey c'est grâce bu fi c'est grâce au c'est à la peuple sénégalaise donc bu fekkente ni yow euh, nguur gi mënu leen delloo li nga xamante ni ñoom ñoo leen ko fi teg ñoom waroon nañoo mën a réagir que ni lépp lu nguur gi di def li nga xamante ni dafa nëbb mu transparent ci bëtu sénégalais yi bon je me dis que c'est un manque de respect vis population sénégalaise que li may li may li may wax ci affaire bi benn exemple rek laay joxe tey bu fekkee ne nguur gi day dagg euh, ci ci ci terrain yi nga xamante ni tey euh, ça appartient à la population yi nga xamante ni ñoom mun na cee bénéficier wu ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo duñu leen ko jox donc man euh, je me dis que ça ne pas donc les sénégalais doivent réagir à vis vis à ça ci problème mu wakaam bi fii nii rek ñooñu waroon nañ régler seen problème déjà boo gisee ñuy dagg di ko joxe c'est peut-être dañ koy dañ koy séddale ci seen biir. man je n'ai pas peur de le dire dañuy li ñu moom ñun ñoom la ñuy jël di ko séddale ñi nga xamante ni yàllawuñu ko di ko jël di koy utiliser ci seen biir bon c'est pas normal du tout man euh, j'appelle à toute la jeunesse sénégalaise bi nga xamante ni son sont conscients que euh, le gouvernement euh, dañuy jël li nga xamante ni ñun ñoo ko moom di ko yelloo ñu koy pasar pasare di ko di ko def di n'importe quoi. ah téere yi daal li ma koy ñaan mooy. mu leer rek comme ñëpp ko bokk. Ah, bu ñu koy joxee dañ ko war a annoncé ñëpp yëg ko rek ñu wax niñ koy joxee ku man dem ku ñëpp nag dëgg la mënuñu ci am waaye nag ku sa sens nekk nga am ci rek ñu joxe bu fekkee dañ bëgg nit ñi am ci kenn ku nekk ñu wax la niñ koy joxee ah nga dem tenter sa sens boo mënee soo mënul nag nga xam ne yow ñoom def nañ li ñu war a def yow yaa mënul. ah loolu man pour man du yoon ndax loo xam ne ñëpp ko bokk buñ koy joxee ñëpp war nañ ko yëg ku ca mën a am am te ku ca mënul am xam ne mënoo caa am. wante kenn waru ko joxe noonu rek fekk ñi te bokk ñëpp yëguñu ko loolu daal man moo ci sama xalaat. rapport Yoff bi mun na nekk leneen mun na nekk ay centre commercial waaw mun na nekk ay centre commercial non non non du yoon parce que chinois yi euh, seen njëriñ bëri wu fii waaw parce que ah mënuñu jógee bitim réew ba pare ñëw fekk suñu fii ba pare nag ah, jël suñu suuf. loolu ñun bu ñu sàgganee sax bu yàggee ah dootuñu dese dara waaw dootuñu yoratu dootuñu amati dara waaw loolu moom vraiment loolu moom ànduma ci tey ànduma ci ëllëg waaw moom daal li ñu moom nañ ko bàyyi population bi lépp lu ñuy def it ñu toog waxtaanee ko quoi war gaal ak yëgu waaw na lépp leer na lépp leer loolu daal moo gën quoi waaw loolu daal moo gën voilà. bon aéroport bi bon du ma ci wax lu du ma wax lu sori parce que euh, gis naa ne ah, yëguma ci lu bari xamuma ci lu bari mais xam naa ne aéroport bi moom waroon nañoo def lépp ba ba mu des dagg ko len def nañ ko erreur erreur la d' abord aéroport bi waruñu ko woon tëj parce que bi ñu ko tëjee tëj nañ di tëj nañ Ngor tëj nañ Yoof tëj nañ ko jox nañ ko armée bi je ne sais pas gis naa ay ay tabax yu bees ci biir gis naa gars yi di dagg ci biir mais dara leeruma ci bon xaw ma nag lan la ci nguur gi yublu mais war nañ war nañ ci wax lu leer bi nga xamante ni ñun sénégalais yi ñun ñi dëkk ci côté bi war nañ mën a xam lan moo xew ak lan moo tax ñu dugg ci biir aéroport bi di ko dagg noonu war nañ mën a xam bu fekkee dañ ay terrain ñu joxe la dañ ko jox ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo ko ah, wax dëgg yàlla man loolu xaw ma ci dara xaw ma ndax ñu ngi koy joxe wala joxe wuñu ko en tout cas nag maa ngi ci dëkk bi di tourner gis naa nit ñi di fa liggéey mais xaw ma nag yan condition lañ koy joxe ak ñi ko am yan condition lañ ko amee loolu xaw ma ci dara wax dëgg yàlla. Euh, ay bon euh, chef de quartier yeeg tu as vu notable yeeg maire yeeg lépp ñuy toog di communiquer di di yëgoo euh, ba bu ëllëgee ñu am entente terrain d'entente ba euh, dara mën leen bañ rëcc quoi wala ñuy def lenn ci seen ginnaaw te yëguñu ko waaw loolu moom vraiment war nañoo am entente seen biir aussi ba bu ëllëgee yu bëri xew-xew yu bëri di am nii du mën a nekk. waaw donte ñu ngi koy jéem sax mënul nekk quoi mais vraiment man su ma sañoon euh, li askan bi moom daal sénégalais li ñu moom ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko seen seen borom daal waaw parce que jeunesse baa ngi fii xale yaa ngi euh, màgg si dëkk bi mu ngi xat si vraiment euh, su ma sañoon daal vraiment ñuy dimbali population bi ci yu mel noonu di war gaal ak yëgoo Sénégal jëm kanam. je lance un à, à, à toute la jeunesse sénégalaise pas les inconscients les conscients ñi nga xamante ni ils son dans les maisons ils sont dans les hôpitaux ils sont dans les écoles ils sont partout ils sont ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci car rapide yi ñëpp ci lañ bokk mason yi menuisier yi manœuvre tout le monde voilà je lance à tout ñu réagir ñu xool na la ñuy changer le nouveau type de sénégalais vis-à-vis combattre li nga xamante ni nguur gi tey mu ngi ñu koy yóbbee sonn nañ bon on laa on est fatigué. ah askan wi daal li ma leen di lancé mooy ñu delloo góorgóorlu fonk suñu réew fonk suñu bopp te li nga xam ne moo di justice bi comme ni ñu koy waxee nii la yent bi saa salaam waxoon dafa ni woon al jami amuta saawun amaam al xaanuun ci kanamu yoon daal ñëpp ñoo ca bokk war a yem amul doomu buur amul doomu baadoo la nit ki bu defee loo xam ne moom kese la concerné kooku ma kam ko seqal bu ko mënee toléré na ko baal waaye ko xam ne li nga def dafa concerné askan wi yëpp kooku dañu laa war a topp teg la ci yoon delloo si la loolu mooy dëgg. mu nekkoon ay kàddu yam solo yuñ jëlee ci askan bi waaye itam ñoom ci lu gën a bari. koo ci laaj danaan alalu mbooloo balaa nga cee jël ab benn ndogal. foog nga waxtaan ak ñi ko séq. te itam kenn ci ñoom mënu laa wax lii ma fa xew. ñuy ñaan nguur gi rek mu leeralal leen. ci ay projets yi nga xamante ne daanaka. antu woon nañ ko waaye itam ci gestion aéroport bii.